jàng ak njàngale parce que ki nga xam ne moom mooy le performance mais aussi ci qualité avec les inspecteurs de l' éducation maintenant la bëgg wax exactement il faudra ñu xam exactement ci ci base lañ koy lañ donc nouveau système éducatif bi muy wax noonu donc ñu dekkoon ci ak ki nga xam ne moom mooy Ndongo Sarr le secrétaire général du CUSEMS cadre unitaire syndical des enseignements du moyen et du secondaire pour mu repréciser de vraiment li nga xam ne mooy la pensée ndax nag ñëpp xam nañ ni système éducatif sénégalais bi fi mu nekk yaram mu mag la fépp mooy metti et soo xoolee ni ñu ko tëggee euh, dafa nekk système boo xam ni au finish euh, li muy produire bokkul ak li nga xam ne ñun moom la ñu soxla pour tabax donc suñu réew et loolu ñun dañ ko gëm ba loolu moo taxoon en janvier 2022 ñun suñu bopp dañu organiser benn conseil syndical national. en janvier 2022 boo xam ni en janvier 2022. boo xam ni dañu waxtaan ci loolu à l'époque d'ailleurs ki nga xam ni mooy professeur Mary Teuw Niane moom la ñu invité woon pour que mu ñëw pour ñu waxtaan donc ci question de sorte que ñun mbir moom xalaat nañ si ba am na lu ñu tënk loo xam ni dañuy jàpp ni ci loolu donc la ñu war a def. ci loolu la ñu war moo tax nag mhm. euh, li ñuy ñaan mooy. ministre de l'éducation nationale mbir moomu mu wax te xam ne ñun d'accord nañ ci ci doxalin bi mu waxtaan ci ak acteurs yi rawatina ñun ñi nga xam ne nous sommes des acteurs de premier plan soo gisee may wax loolu c'est parce que yéen seen bopp gis ngeen ni dernièrement mm-hmm. bari na ay initiative yoo xam ne jël na ko yoo xam ne ñun si mbedd mi lañ koy yëgee mm-hmm. moo tax day jël initiative yooyu ba pare mu indi coow loo xam ne mënoon na ñàkk mm-hmm. wolof day wax ni wat gaal ak yëgu. dëgg la nit ki li ngay kay defal da jàpp ni njariñam la yaakaar naa waxtaan ceeg moom ca njëlbéen ba xam exactement moom lan la ci xalaat su dee dafa am ay préoccupations mu ko nga jël ko en compte ñun dañ jàpp ni loolu lu am solo loolu suñ ko defee ñun li nga xam ni xalaat nañu ba tënk ko bu boobaa daañu ko joxe te yaakaar naa ni bu boobaa li defar rek la mi ngi noonu ki nga xam ne mooy Ndongo Sarr secrétaire général du CUSEMS dégg nga ko li nga xam ne moom la wax ci li nga xam ne moom mooy loolu ministre bi wax nee ñoom ils sont accord avec li nga xam ne moom mooy le ministre li nga xam ne moom mooy repenser li nga xam ne moom mooy le système donc ci ñaari ci ñaari wàll yi maanaam sur le fond maanaam il faut xoolaat li nga xam ne moom mooy le programme ak li nga xam ne moom mooy curricula bi nga xam ne xale yi moom la jàngee donc pousser ko ci li nga xam ne mooy innovation mais aussi ci li nga xam ne mooy les nouveaux métiers mais aussi ci lañ nekk mais aussi élèves aussi ñu penser li bokk mais nee ñoom aussi les enseignants ñoom ñi nga xam ne mooy les syndicats il faudra aussi ñu impliquer leen ci li nga xam ne mooy penser boobu noonu le ministre bëgg wax donc sans ñoom je pense que nee mënul dem parce que ñoom ñoo nekk

moo ci gën a am solo par exemple déficit d'enseignants bi nga xam ne mi ngi mi ngi mi ngi fi actuellement je pense que surtout dans les zones yi nga xam ne mooy les zones reculées bu nekkee que les bu xoolee la fa nekk ci li nga xam ne moom mooy enseignant matul dara je pense que ba ñuy waxtaanee na boo demee ci yenn zones yoo xam ne da nga gis benn enseignant boo xam ne moom mooy jàngal 3 ba 4 classes décole c'est-à-dire gravité bi ni ñu koy waxee fii si Sénégal je pense que gravité ëpp na ëpp na li ñu mel ci nombre de déficit parce que en 2023 rek ñu ngi doon wax ne y a 8000

jullee da gis benn enseignant au lieu mu jàngale quantum horaire bi mu war a jàngale donc dafa ci teg énormément donc d'heures pour vraiment jàngal li nga xam ne moom mooy moom mooy xale yi indemnité mais aussi les heures supplémentaires te loolu noonu tamit il faudra ñu tax si bu baax mais surtout nag ci déficit d'enseignants parce que bu ñu bëggee wax ne dañoo bëgg repenser le système éducatif yóbbu ko ci performance yóbbu ko ci qualité il faudra ñoom assez assez d'enseignants parce que bu fekkee ne benn enseignant dafay jàngal 4 wala 5 classes donc loolu mënul vraiment respecter li nga xam ne mooy quantum horaire bi mënul aussi joxe enseignement de qualité ak aussi ne c'est je pense que rendre hommage rek euh, à tous ces enseignants. surtout enseignants euh, primaires le le gap boobu noonu ñëw j'espère que euh, suñ ko naree combler aussi on ils vont passer par les moyens euh, norm normaux pour pour mën ko def parce que vraiment gisoon nañ fi ay recrutement d'enseignants yoo xam ne mhm. des gens à peine bu dee BFM ci lay yem moom la ñu am ba pare ñoom la ñu yóbbu ci classe yu ndaw yi alors que foofu mooy début bi et on devait y amener des gens yu am niveau et tout mhm. mooy base boo xam ne mooy lépp donc euh, yaa a y yaa yaa a y a y a déficit est ok mais aussi je pense qu'il faut prendre le temps aussi de bien forme ces enseignants là ba pare ñi ñu ñu former aussi ñu yóbbu leen ci classe yi ñu jàng euh, gis naa def euh, li nga xamante ne moom di mooy euh, port voile bi Euh, bon ministre bi yóbbu na ci. arrêté yi ci école yi. je sais pas xam lan lan moom lan la si école yi xalaat surtout école yi nga xamante ne école ay école xam ne moo moo moo moo boo xam ne c'est un sujet wax donc bu ñu waxtaanee ak ki nga xam ne moom mooy ndongo sax nga xam ne c'est le secrétaire général xam ne moom mooy moom mooy cadre bi ci un lieu boo xam ne c'est un lieu laïque tout simplement c'est-à-dire képp koo xam ne élève nga waru ñoo la mën a discriminer par li nga xam ne moom nga gëm wala par tes par tes croyances ni nga xam ne moom ngay solo donc loolu warul nekk benn problème boo xam ne war nañ ko mën a sax waxtaane c'est-à-dire il faudra que l'État du Sénégal tout simplement am rigueur ci li nga xam ne moom mooy yi ni mel parce que waruñu discriminer benn élève ndaxte dafa gëm lii wala dafa gëm lii wala dafa dafay solo dafay solo lii je pense que loolu mooy l'essentiel dans dans l'école maintenant nag école dina am ay règles yoo xam ne dañ koy respecter mais yooyu je pense boobu jarul ñu ñu koy laal mais on peut s'habiller décemment bon mm-hmm. si tu t'habilles décemment tu peux venir à jaa ngi si wala ñu la mën a discriminer par rapport ak say croyances te li mu ci wax mooy état na plus d' autorité li nga xam ne moom mooy la règle strictement. Mm-hmm. alors mm-hmm. Amadou man gëw ma ni Sénégal dinañ am benn dinañu mën a def benn année scolaire ba mu jeex te du am benn bouleversement. parce que mm-hmm. à chaque fois boo xoolee dafay am. ay tension yu nga xam mooy dox diggante syndicat yi ak état bi je que principal problème bi foofu la. Mm-hmm. principal problème bi foofu nag je pense que dañuy bàyyiwaat ki nga xam ne moom mooy Ndongo Sarr mu ñëwaat ci aspect li nga xam ne wala appliqué li nga xam ne moom mooy les accords yoo xam ne signé woon nañ ko en te ba ñu ngi xaar application y le nouveau gouvernement qui est là may nañ leen temps bi ñu leen bi ñu leen nag. c'est une question tout simplement ñun lu ñu ñaan te loolu dañ ko wax ñi ñu jiite. bu yàgg bi ñu ñëwee rek ñu tase dañ leen wax ne yéen am ngeen chance bi ngeen di ñëw daanaka école tëj. dëgg la boobu yëngu-yëngal xajatu fa. Mhm. ñu leen donc am ngeen ñeenti weer seen kanam. pour liggéey yoo xam ni passif bi fi nekk am na ay question yoo xam ne balaa école di tijji bëgg nañu ngeen teg lenn suñu loxo. lan lañ ci defagum. mais moom la ñuy xaar xamaguñ ko. Mhm. dañuy waxoon ni ñu semaine bii daañu. convoqué benn comité de suivi. ba léegi su may wax ak yow ni yéen a ngi xaar jotaguma convocation. bu wane ni kat comité de suivi boobu or yéen seen bopp xam ngeen ni balaa yàgg ñu dem. Mhm. mais su loolu amee ba am lu yëngu ci système bi itam bu boobaa bu ñu wax ni jàngalekat yi ñooy responsable. lu yëngu yéen la. waaw nañu jël. Mhm. seen ay matukaay balaa ñuy dem campagne vraiment ñu woo nit ñi wax ak ñoom teg leen seen loxo. pour que jàmm ni ñoom yi noonu ki nga xam ne moom mooy moom mooy li nga xam ne moom la wax ci accord yi nga xam ne moom la ñu war c'est-à-dire actuellement risques yi ak tensions yi ba tey sont parce que li nga xam ne moom mooy l'état c'est une continuité te gouvernement bi nga xam ne moom fi nekkoon donc signé nañ des accords en 2022 appliqué wuñ ko y a nouveau gouvernement qui est là ba ñu ngi leen di xaar nee na semaine passée dañu waroon def comité société donc c'est une question de priorité tout simplement ñoom dafa mën a vraiment jiite li nga xam ne moom mooy l'éducation bañ a léegi li ci li xam ne moom mooy la politique maintenant ñu ngi xaar ba tey li nga xam ne moom mooy donc convocation boobu noonu c'était la semaine passée semaine bi donc defuñu ko donc ñu ngi xaar bu fekkee nag def nañ ko maintenant avant les élections donc ñoom nee lu ñu gis rek dañ xam ne ñoom la donc dinañ yëngu-yëngal bu baax a baax parce que c'est une question de priorité politique la ñu jiital ci li nga xam ne moom mooy les intérêts de la nation. ce qui est anormal waruñoo jiital politique. alors que éducation baa ngi ci lu am am solo parce que tout temps élèves yi ñoom ñooy payer. li nga xamante ni moo di l'impôt cassé. merci beaucoup Amadou. merci beaucoup bu baax a baax ba ëllëg incha allah. incha allah demain. jaajëf euh, Kajo merci. bonne journée à tout le Bonne journée, Pape. Merci beaucoup. On se retrouve dans la euh, mi-journée. bon, il y a un direct euh, ah. à Diamniadio. D'accord. Pour Assise ou Transport. Ok. Donc, Les états généraux. exactement. Donc, euh, on à demain. À demain. Merci beaucoup à toute l'équipe de la matinale. Passez une excellente journée à nos téléspectateurs. Bien et